wasalaamu ala rasulillah asalaamaaleykum wa rahmatullah bokk yi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew ci Bichri TV ak Touba Monde bi TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey nag ñu am jataay bu am solo bu ñu war a amal war ko séq ak bokk yi féete ci Touba ci kanam njëkk nag ñuy sori ci waxtaan woowu dañuy tàmbalee ziare ci Cheikh Mamadou Mountakha di ñaan mu yàgg fi loolu tànd ak wér waaye di ziar bu baax a baax laaj Takku Mbacké moom Serigne Fallou di ambassadeur Touba Ca Kanam waaye ziar bu baax Serigne Abibulaay Mbacké waaye tamit ñu ziar bu baax a baax soxna Bintu Mbacké mi nga xam ne moo jiite soxna yi Touba Ca Kanam di ziar bu baax président actif bu association Touba Ca Kanam muy Serigne Abdou Fatah ak mboolem ñi ñu bokkal liggéey boobu tey nag ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci ñenti euh, commission yoo xam ne bokk nañ ci ñi ngànk liggéey Touba ci kanam bi njëkk mooy commission santé te Amadou Falelu Ndiaye jiite ko xam ngeen ne démb lañu doon amal bisu daloo ñetti barabi fajukaay yoo xam ne bokk na ci semb yi Touba ci kanam semboon te loolu sotti waaye ñàkkul am na lu ci des ak naal yoo xam ne at mi ñu nekk te jàpp nañ ne war naa mën a am loolu nag kiñ ñu ciy àndal mooy président Sëñ Abdou Fatah Guèye ginnaaw boo xamee ne mooy kilifa mbooloo mi ci wet googu waaye ci wàllu sante dinañ ci ànd ak moom incha allah euh, ki ci mooy sëñ Cheikh Abdoulahi Bakke moom sëñ Damaata jiit réalisation moom dinañ ànd ak moom walu commission boobu nga xamne ne luy réalisation ci Touba ci kanam mom moko jité jiite dinañ and ak mom ci liggéey bu am solo euh ki ci top moy Serigne mamour mbacké mom Serigne mourou Bousso jité jiite commission bi nga xamne ne scientifique et culturel mom tamit inshallah allah danañ ànd ak mom ndax dekk wu sel bi di Touba koko wax di nga wax jang ak jangalé ban taxawaay la ci commission boobu am ci biir dëkk bi ci biir Touba ci kanam nooru dara ñi euh, sunu ñeenteelu invité mooy soxna Ndeye Marème Mbacké di première vice-présidente bu commission féminine ci turu soxna Bintu Mbacké moom tam danañu waxtaan ak moom ci ban taxawaay la soxna yi am ci Touba ci kanam rawatina biir Touba ak yan naal lañu am ci luñu japp ne dafa wara jëm ci soxna yi ci liggéey bu Touba ci kanam kon lool moy wara nek inshallah allah sunu sunu waxtan ak yeen dañuy tàmbalee ak yang Abdou Fatta rek xëy ngir baña guddal Serigne Abdou Fatta ginnaaw buñ la ziaré ba noppi eh, dañu la bayyi nga nuyo ak eh, mbokk talibé yi alaykum wa rahmatullah. alaykum assalam wa rahmatullah mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziaré ginaaw bi nu sant yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sant Serigne Touba njëkkee ci nuyoo bi Serigne Mountakha ñaan suñ borom mu yàggal ko fi. dëgëral ko wéral ko. jataay bu ñu toog di waxtaanee Touba ca kanam. Euh, donte Serigne Mountakha mooy kilifa yoon wi ci moom la ñu war a tàmbalee lu ñuy wax lu nekk. waaye bu dee Touba ca kanam da cee amaat beneen wàccuwaay ndax bu ñuy wax ku jiitu ci Touba ca kanam moom la. ci ak dogoom ak pas-pasam mag ay xalaatam ak jàppale goo xam ne mi ngi koy jàppale Touba ca kanam jamono bu nekk ñoo ngi koy ñaanal suñu borom dolli ko wér ak gudd fan kàttanal ko dëgëral ko jàppandalal ko ab liggéeyam euh, nuyu alaaji Sëriñ Tàkku mbakke mi nga xam ne ci Touba ca kanam moom la ñuy wooye ambassadeur bi ngir pasteefam rawatina ci bitim réew ak ci biir réew mi nuyu sëñ Abibulahi Mbàkke mi nga xam ne mooy kilifa gu màgge ci taxawaayam teg ci sëñ Abdoulahi jëwriñ ju ci moom ak soxna Bintu mu jiite soxna yi nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan jël nuyoo boobu teg ko ci sa loxo sëñ Bayteen ci diaspora bi ginnaaw bi ñu nuyoo sëñ Abdoulahi Mbacke moom sëñ Dame Atta mi nga xam ne moo jiite commission réalisation ak sëñ moom Mamor Mbacke moom sëriñ Mourou Boussa Dieng ak soxna Nday Mbare Mbacke mi nga xam ne moo fi teewal soxna yi Touba ci kanam ci plateau bi di leen sant di leen jaajëfal ci waxtaan wi nga xam ne fas yéene nañ koo am amal ca mu jëm lépp rek ci leeral liggéeyu ci kanam bi jërëjëf sëriñ Abdou Fatah Gueye mbokk ñuy teewlu ci nuyoo bu matale boobu euh, kon dañuy ñëw rek directement ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi sëñ Abdou Fatah Gueye en tant que président Touba ci kanam waaye tey tamit nga teewal fii Mamadou lu Ndiaye mi nga xam ne moo jiite commission santé bis bi nga xam ne def nañ ko démb bi njëkk mooy fan ngeen tollu ci wàllu poste de santé yooyu ndax déggoon nañu ngeen wax ne am na lim ngeen ci tàmbali woon euh, xëy na ñett noppi na ci démb ñaata moo des ak xëy na yan jamono ngeen yaakaar ne dana war a mën a noppi mooy ñaareelu question bi ñetteel bi mooy nga boole ko euh, ndax am na yeneen naal yoo xam ne am ngeen ko ci at mi lu jëm ci wàllu wàllu wàllu santé euh, fi ngay tëjee nag mooy jataayu démb bi bëggoon nañu nga xaymaal ñu ko ni ngeen ko xalaatoon woon ba woote ko ndax amee ngeen ko ni ngeen ko bëggee woon jërëjëf euh, Serigne Mbaye Tène duñu fàtte Euh, Serigne naa Lo mi ngi xam ne moo jiite commission relation extérieures te mm-hmm. tey ñuy waxtaane ci chaine boo xam ne waa bitim réew dañ koy bàyyi xel kon ñu ngi ci jaare di nuyu membre Touba ca kanam yi ci bitim réew yëpp mm-hmm. lu jëm ci wàllu santé ci Touba ca kanam euh, Mamadou Fallou njaay moo fi waroon a toog mi nga xam ne moo jiite commission santé mm-hmm. kon day mel ne mën nañoo wax ci wet boobu représenté fi waa commission santé bi yëpp euh, li nga xam ne moom la ci Touba ca kanam am ci naal ni ñu ko waxee démb ci bi ñuy inauguré ñetti poste de santé yooyu. ci ndigalu Serigne Mountakha ndax Serigne bi moo jàpp date bi nga xam ne moo nekkoon datu démb bi. ngir ñu ubbi ci poste de santé yi. Mhm. ni ñu ko waxee woon nag li tax Touba ca kanam bi mu jógee rek mu tàmbalee ci santé waaye santé de proximité borom xam-xam yi yëngu ci santé dañoo wax ne dafa am lu ñuy wax pyramide sanitaire pyramide mooy loo xam ne suuf gi day yaatu kaw ga sew euh, mooy boo tàmbalee ci suuf santé de proximité bi gën a jege nit ñi. boobu mooy bii gën a ndaw loo gën a jëm ca kaw moo gën a mag case de santé poste de santé centre de santé nga doog dem hôpital. Mhm. Euh, poste de santé mooy gën a bari. ndax euh, norme OMS moo wax ne dix mille habitants fu ñu am war nañu am poste de santé. Mhm. Touba nag dafay mel ne bu ñu sukkandikoo ci niñ ko waxee démb ci PNDS mooy plan national de développement sanitaire. Mhm. ñoom ñi nga xam ne bu dee réew mi ñooy saytu mbirum santé naka lay doxee yu ni mel. ñoom ñoo wax ne euh, Touba lu gàtt gàtt waroon naa am quatre-vingt-dix postes de santé. te vingt-trois moo fi nekk. laata Touba ca kanam doon ubbi ñettam yi kon day mel ne am nañ gabu soixante-six postes de santé. bu dee lu mel ne ay centres de santé aussi am nañ gabu douze centres de santé. ci liggéey boobu nag dañu xam ne gu yaram mooy baasu lépp nit balaa mën a def dara dafa amug wér lu mën a doon bala nga ko def da nga amug wér looloo tax Touba ca kanam bi rek. mu daal di xalaat ne war naa dugal loxoom ci wàllu wér-gu-yaram donte du noonu bi muy dugal loxoom ci wér-gu-yaram tamit boole na ci yeneen ndax Touba ca kanam day mel ne eh, wet yi nga xam ne yëpp dafa doon lu jàmp lu ñu soxla dafa daanaka dafa mel ne wet yëpp lu ci nekk rek da caa laalandoo dara lu ci nekk rek da ca tàmbalee doo dara ci la ñu tàmbalee nag ci poste de santé tàmbalee ci bi nga xam ne moo nekk Lansar ba nga xam ne yàlla dogal na ubbi nañ ko depuis 2018 ba ma ngay fonctionné hmm. ci la ñu tegaat nag ñett yi nga xam ne moom lañ ubbi démb benn bi nekk Kër Gorel benn bi nekk tubaab bu Gorel benn bi nekk Daaru Xadim yooyu yàlla dogal na liggéey bi noppi na bi mu noppee tamit équipé nañ ko hmm. waaye booy dégg baatu poste de santé jàppee ko ni ñu xamee poste santé te gisee ko yu Touba kanam yi mën ngaa jàpp ne Touba ca kanam poste santé yi ñu baaxoo xam rek la liggéey hmm. waaye yii moom ku ko xool ñi ko xool ñëpp dañ naan sax yéen liggéey leen ay poste santé ay centre ngeen di liggéey hmm. bi ak tabax yi wax euh, day def si doon poste santé ku ko bëgg a def centre de santé faaw nga am tuuti modification yoo ci def waaye du am solo hmm. ndax yokk ci yeneen service kon ci loolu lan moo def ci liggéey bi mooy liggéeyu santé moom bari na ci dëkk bi lool ndax ni ñu ko waxee carte sanitaire bi mooy euh, district bi toujours dañuy xool wér-gu-yaram gi nan la toll naka la jegee askan wi ak naka la ndax am na ndax quantité bi fi nekk doy na hmm. wala manqué na wala yu ni mel waaye boo loolu bu ñu la ko laajee moom da ngay xam ne manqué na ndax li ciy firnde mooy poste de santé boo dem wala hmm. centre de santé boo dem la nga fay fekk ci mbooloo daanaka boo fa waree xëy faju mën nga faa yendu bëccëg bi yëpp nga nekk fa te loolu soxna yi xam nañ ko baax a baax hmm. loolu nag bu bari woon ba noppi euh, di am service de qualité day noppal ñëpp ndax dina tax euh, nit ñi man boo demee doo fa yàgg te ka fay nekk dina am dina mën a jël temps bi mu war a jël ci yow ba nit ki buñ ko waree téye sax def li war ci moom yëpp dinañ ko mën a def hmm. waaye bu fekkee dafa manqué nag loolu mën naa mën naa indi ak sooxe loolu tax Touba ca kanam di ci dugal loxoom hmm. beneen bi ci topp te muy lu ama am te mu mel ne eh, eh, docteur Dieng wax na ko démb hmm. mooy mutuelle de santé ku nekk xam na ne Touba ca bi mu dugal loxoom ci santé ci biir dëkk bi dafa am aspect bu muy yóbbaale bu jëm ci wàllu social ndax bëgg dimbali nit ñi ci seenum paj moo tax Touba Ca dugal ci loxoom. Hmm. bëgg ñu am paj mu am qualité ba noppi yomb. loolu nag ngir mu mën a am dafa am lu am solo lu ci lu lu ci mën a dugal loxoom te mooy dimbalante gi. Hmm. ndax bu ñuy wax mutuel de santé xeetu daanaka rek dimbalante la jàppoo ngir dimbalante. Hmm. Euh, ñi ngi wax ne Pakistan am na fa benn hôpital social boo xam ne hôpital bu moderne la am na lépp. te ku fa dugg di faju doo fay dara. ko fa dem sax di yok xam-xam do fay dara ñu lay jël en charge Sénégal dégg na yabal nañ ben délégation yabaloon nañ ben délégation pour ñu dem fa vérifier ji ko lu melne li Touba ci kanam di doxee rek lañuy doxé kon Touba ci kanam mën na am dem lu liggé ci santé ba ag ci fo xamné duñ né sax mën na doon gratuite à 100 pour cent doonte loolu mën naa nekk waaye kon mën na wayef toy kon tambali nañu ubbi ay waxtaan ak directeur CMI ñi nga xamna ñoy walu walu mutuelle de santé ci ci dëkk bi. ngir ñu waxtaan ak ñoom ba Touba ci kanam maanaam mutuelle de santé bu dëgër bo xamne ne danañ fexé ba lu lu lu bay ci population bi bind fi bu ko défé lool mën na dimbali ba daanaka paj mi day yomb ba ba jëm daanaka ci gratuit. da mhm. ci toppaat tamen moy poste de santé yi bëgg nañu and ak district bi équipé ko ba mu am ay équipement yo xamne dana dem dayo ndax poste de santé sax xayna dañ ko limité waye fam mëna yam dal ci walu ci walu euh, équipement ñu équipé ko ba nga xamne yenn service yu bare bare dana fa japp mhm. ngir baña guddal loolu moy euh, lenn ci mébétu tuba ci kanam ci santé mhm. lenn ci mébétu tuba ci santé jërëjëf sëriñ Abdul Fattah mel na ni bu ñu la dégloo euh, Touba ca kanam def na jéego yu am solo ginnaaw bu ñu xamee ne am na benn gàpp bu tolloog euh, soixante-dix euh, postes de santé yoo xam ne d'après normes yi nga xam ne OMS joxe na ko dix mille personnes habitants fu ñu dëkk fu nekk war nañu mën a am benn poste de santé tubaat ca kanam def ci jéego 2018 amoon na benn poste bu ñu inauguré démb tam ñu abal lu ñetti poste yoo xam ne gis nañu ne yooyu yemb na. kon loolu day am solo lool ci e, dëkk bu mel ni Touba ñu bàyyi ko xel mu mel ni exemple bi nga joxe tamit ci réewum Soudan loolu it yaakaar naa ne. dox jëm hmm? Pakistan Pakistan euh, exemple bi nga joxe ci réewum Pakistan loolu yaakaar nañu ne war nañ mën a dox jëm ci loolu te lépp mën na nekk ci bu ñu booloo waaye bu ñu bennoo waaye bu ñu dee yëkkateendoo di tegandoo kon loolu it mel na ni e, li ñuy faral di wax ne Touba ca kanam dafa nekk un modèle de développement communautaire. loolu aussi mën nañ ko gis ci cadre santé d'après bu ñu dégloo li nga wax yooyu yëpp nag mu nekk yoo xam ne euh, sëriñ bi ak waa dëkk bi euh, li leen boole moo tax ñoom ñu jaayante ngir def loolu kon ñu ngi jaajëfal sëñ Abdou Fata ci turu commission santé euh, jaare ko ci Mamadou Fall Ndiaye mi ko jiite dañuy ñëw nag ci suñu ñaareelu invité muy sëñ Cheikh Abdou Mbacké mi nga xam ne moo jiite commission réalisation sëñ Cheikh Abdou xam nañu ne réalisation loolu bu Abdou Fra doon wax euh, liggéey yooyu yéen ko doon taxawee waaye fu mel ni Touba fii ñu toll nii ak it nawet bi ñu ngi ciy dugg euh, heure bi daaw gisoon nañu liggéey bu am solo boo xam ne doon na am ci wàllu opération defar yoon yi loolu yëpp jëm ci réalisation yi xëy na bu ñuy tàmbali loolu du mën a ñàkk ñu tàmbalee foofu ndax nawet baa ngi dugg si euh, taw bi tàmbali na bëggoon nañu xam yéen waa réalisation fan ngeen tollu ci liggéey boobu ak it liggéey bi nga xam ne jotoon ngeen ko def ci at mi ñu génn ginnaaw ba mu tawee yan jàngat ngeen ñu ci mën a defal ñu xam tolluwaayu liggéey boobu ndax qualité yi ñu ci doon séntu am na ko wala wala loolu déet sëñ Cheikh Abdou. auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf sëñ Mbaye Thiam ñu ngi lay delloo di la ziar di ziar mbooleem ñi ñu bokkal plateau bi commencé ci sëñ Mamor soxna Ndeye Marème sëñ Abdou Fatah ak mbooleem fu ay nekk te te dañu dégg ku ñuy jéem a tontu sa laaj nag dañuy commencé ci rek wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ni nga ko waxee ah. euh, ñu ngi woon ni nga ko waxee daaw ci den jéem maslu àq ci dëkk bi rawatina ci wàllu wàllu inondation yi surtout ak waajtaayu màggal tubaa gi nga xam ne dafay dugg léegi lool ci biir nawet bi màggal dem ak dikk la bu bu bu yoon yi jàppandiwul dafay sooxeel lu bare bare bare bare loolu taxoon daaw ñu engagé woon doon jéem a xool naka lañ mën a def ci masu ca àq daal ah. fekk it Touba ca kanam gis ne comme moom day yàqali rek ay mbiram te gis ne it jumtuwaayu sëriñ bi la boo xam ne ci bépp domaine bu ñu ko soxlaa rek war na faa yëngu. Uh-huh. daaw ci 2020 bi la ñu taxawal commission environnement ak yenn nati commission yoo xam ne gis nañ ne liggéey bi mënu koo ñàkk. Uh-huh. ni ki commission santé bi ak yeneen. Uh-huh. ci loolu nag lañ sooboo woon ci liggéeyu jéem a xool naka lañ mën a defee ci wàllu assainissement bi donte assainissement lu diis la. Euh, lu rëy rëy la waaye xam nañ ne noonu sëñ Tuubaa amul morom. wax woon nañu ko ba tàyyi. ci loolu kon lañ tàmbalee woon lu mat ñaar fukki barab yoo xam ne. gisoon nañ ne. moo gën a fés. ci jafe-jafe dem beeg dikk bi ci ci dëkk bi. barab yooyu séddalikoo ci ay xeeti anam yu bari yu bokkul. fii ay yoon la yoo xam ne nii. dañ ko defaroon ay tali ba pare amul assainissement. amul assainissement am ay point bas yoo xam ne ndox mi dafay wàcc des fa. bu fa desee nag ndox mi day yàq tali bi. bu yàqee nag tali bi yàqu ndox mi kon ne di fa nekk ba yegg ci bu nawetee kenn du ko mën a jariñoo Euh, ak ay yoon yu mag ni ay trente mètres di trente yu mag yoo xam ne amul sax tali waaye euh, dafay séddale lu bari ci gox yi muy nekk uh-huh. waaye yàlla dogal bu nawet bi ñëwee moom itam man ngaa toog bu taw nga toog semaine boo xam ne nii mbedd mi kenn du ko mën a jëriñoo uh-huh. ak ay bërëb yoo xam ne sax xëy na du ñu ay du ñu amuñu problème mu ndox waaye jëmmi ay yoon la yoo xam dafa yàqu ba mën a jur ay danger yu mag a mag nag ci dem beeg dikk bi uh-huh. rawatina ci population bi yooyu bi ñu jógee daaw te engage ci lu mel noonu la ñu engagé woon jëloon ci vingt points yi donte dëkk bi moom lii fi am ci lu ñu war a defaat ci fànn yooyu. Uh-huh. moom bu ñu ko doon xayma day dem ci ay junni junni. Uh-huh. waaye ñu ne yii nañ ko tàmbulee. Euh, bu ci ne it ñu xalaat luñ jàpp ne mën nañ ko faa def pour solutionner ko. Uh-huh. bi ñuy départ ay solution provisoire lañ doon wax waaye nag ah ci biir loolu bi ñu déparé itam ci ci ci ci ci ci ndimbalul sëriñ bi. ñu dem ba gis ne waruñoo def loo xam ne ëllëg si biir dafay yàquwaat. kon lu métti métti war nañoo def loo xam ne day mën a dañ koy mën a jëriñoo daar daar waaye day nekk it lu fa mën a lu fa mën a sax wala lu fa mën a yàgg. lu yàgg waaw ci ndimbalu yàlla daal. lañ engagé woon kon. jot a def euh, bu dee ci wàllu ay tali yoo xam ne ni barab yoo xam ne amul woon amul mësula am tali. ñu defar ci tolloog cinq kilomètres cinq cent. ba loolu bi ngeen di tàmbali liggéey ñaata ngeen xayma woon ne. Eh, balaa ngeen di yëg ne war ngeen def lu ëpp li defoon. Mhm. ñaata ngeen xayma woon pour war koo dajale pour loolu moom solution daar daar bi ma la njëkk a wax ne mhm. lañ gisee woon ne bu ñu amoon trois cent cinquante millions. mën nañ ci régler yenn nati. Mhm. yenn nati barab. ci ci ci solution yu modeste yoo xam ne. mën na caa indi saafara. waaye nag mën na bañ a nekk ci ci yenn qualité yu métti. loolu moom trois cent cinquante millions lañ départ. waaw booba jàppoon nañ lu mel ni sel bi. ak station Darou Khoudoss. waaye yeneen bërëb yi nga xam dafa amoon ndox it ñu solutionné ko rek donte dañ koy sëkk fexe ba yoon wi donte ndox mi daf fay nekk mhm. ku ñëw mën a jaar jàll macha allah loolu loolu lañ jàpp mhm. bi ñu demee ba ci biir nag mujj ñu yëg ni war nañ cee mën a ubbi ab jaayante bi ñu xoolee mbir mi nu mu tolloo ni mu amee solo ñu ne nañ ko nañ ko présenté murid yi mhm. ñu ànd ko ñu ne nañ ko nañ ci woote ab jaayante ginnaaw ndigalul sëriñ bi ci lañ mhm. woote jaayante bi nag ngeen bu baax mhm. ñu ci santaade yàlla sant sëñ Tuubaa sant population bi yëpp euh, rawatina taalibe murid ak fu ñu mën a ne bala ngay bala bi ngeen di woote jaayante bi xam nga at mi ñu génn dafa nekk at moo xam ne mbas mi dafa amoon ci ci àdduna bi bi ngeen di woote jaayante bi bàyyi woon ngeen xel mbas mi Mhm. walla euh, lan moo tax rek ngeen engagé jaayante bi. waaw loolu moom loolu moom yéeg yëg la rek. maanaam gëm Serigne waa xam ne moom. Euh, li sëñ Eblad doon wax naan xol yu nangu moo gën nawet bu. macha allah macha allah ndax yàgg nañ cee jaar. Mhm. lu jiitu ñuy ñuy ñëw ci mbirum jaayante nii di engagé màggal gi. mbas mi dafay ñëw. Mhm. gane sunu. bi mu ñëwee Touba ci kanam def ci ay effort yu ama ama am solo. mënul woon a seetaan te ci la bokk. waaye bi mu ko defee yëpp itam malgré boobu ni réew mi naqare yu bare bëri taxaw dara doxut daanaka rek ci saayir uh-huh. terewul ñun dañoo gis ne maanaam sëñ bi moom nam daan doxee dara soppeeku wu ci xéwal yi mu daan jox Touba ca kanam saa su ne weer bu dee uh-huh. daanaka sax dañoo gis ne dafa yokk waaye wàññikuwul kon loolu moom dañ koy dund di ko dund ba dafay nekk tabia ci ñun uh-huh. mu wóor nu ne rek lépp luñ song te songe ko Pastef danañ ci am ndam loolu moo nu yóbbu ci ay ñii la réew mi tëddeeg naag nangam nit de du mën a ñàkk di xalaat ak surtout lu jëm ci mbooloo ku nekk ak fa nga toll waaye amuñu woon problème ci ci engagé nag ndax xam nañ ne li ñuy def sëriñ bee ko moom te ci biir ñaan gu nangu la ñuy liggéey te buñ ko engagé daañ ci am liñ ci bëgg macha allah loolu moo nu waral lu sóobu ci ah. lu ci sóobu wax dëgg yàlla am ci lu kawe njort ndax buñ nee xayma woon nañ départ ci trois cent cinquante millions pour solutionner yenn barab yi ah. ñu dem bay dem bay ba jege deux milliards wala sax ñu dem ba ne am nañ deux milliards ah. kooku moom c'est autre chose bett nañu bettunu daal ndax bañ ciy sóobu it xamoon nañ ne xamoon ne dana nu wuyu moo tax ñu sóobu ci woote ci ngir jëmbi sëriñ bi macha allah loolu moo waral nu engagé ci woon noonu kon hmm. ba yàlla dogal na euh, yooyu nga xam ne engagé woon nañ ko xam ne vingt points la am na sax yu ci dolleeku gannaaw bi ndax ay am urgence yoo xam ne da koy jege ba doo ko mën a ñàkk yóbbaale hmm. ñu dolli ko ci hmm. dem na xëy na ba vingt trois mën nañoo jàpp ne dix sept points wala dix huit yi moom moom daanaka féete na boor. macha allah waaw yeneen yi ci desit mi ngi ci ak ak njeexantal. Uh-huh. mi ngi ci ak njeexantal ndax euh, li ci ëppoon solo gënoon cee compliqué daal. moom moom jàll defar nañ ko seetlu uh-huh. waxee am nañ ci am nañ ci réussite totale am nañ cent uh-huh. ci ni ko mën a waxee uh-huh. ndax li amoon solo rek te am solo mooy def liggéey bu baax boo xam ne la tax la taxoon nga koy def bu ñëwee di ko mën a jëriñoo te loolu exemple mi fii ñu jàkkaarloo ci station bi euh, da daan taa waxtu yi da daan fekk deux voies yi benn bi la ñuy tey euh, jii boo demoon tey bu tawee ba pare da jàll sans problème li ko dalee nii dem ci ginnaaw Mbaye wad am na ñaari point yu bàyyi yoo xamoon doy war dañ ko rajee def fa branchement yi moom itam ñu ngi koy jëriño bu doy ba paré ndox bi day dem bu dé Daaru khodos jógee ci station bi jógee ci tokor bu euh, ba avant ngay egsi ci marché bi yeneen ñaari point ba ba ci marché bi léegi bu tawé bu paré bo né do fekk dara ci ndox da koy mëna jëriño bo bu dé yoon Daaru Rahman kenn mësta xalaat mu taw ba paré ngay am fenn fofu jaar té ñu am solo lu gatt ndax da ngay joggé ci corniche bi prolongé dem dem gar bu ndaw uh-huh. dem ci djuma ci bu dul won lolu da nga doon ñëw jóge daaru ñew ci jël corniche bi ben nga dem doge ji ko corniche seigne Modou seigne uh-huh. wala nga duggé ko corniche dara Jolof wala nga ñew rompé point poste contrôle mu uh-huh. yoy nga daan jaar ci bu dee léegi da ngay jaar ci tali bi dem gar bu ndaw dem nga xamné da naka bo don set limu wañ ci yoon woowu kéemaan la lolo tali ba pare na noko fa def Euh, ay point baa nga fa ñu ngi ci ab liggéeyam ngir sottal ko. ndax ñu rek solutionné ñiy jàll ba pare bàyyil problème ña nga xam ne ñoo fa dëkk. loolu moom des na tuuti ab liggéey. waaye jàpp nañ ne fii ak weer gën jaa bari weer ak dara dana pare. ndax ñu ngi ci te liñ ci war a def yëpp def nañ ko. waaw tuuti rek lu ci dox suñu diggante waa ONAS ndax ñoo ko war a ànd. ñoo ko war a ànd mooy ci seen réseau lañ koy raccordé. d'accord am tuuti nag loo xam ne nii ñoom faaw ñu jàppe ko ci waxtaanee nañ ko ñoom. bu ñu joxee rek faveur dañuy daal di dem. Euh, bu dul loolu it euh, moo ñëwee jógee noonu jëm si ci rond-point poste contrôle bi da jot foofu benn trente bu la yóbbu Kër Ñaay waaw foofu ci bunt bi da daan am ndox mhm. pour wax la aussi fépp fuñ jaar dafa fekk mu amoon jafe-jafe moo tax ñu ñëw fa def fa dara foofu da daan am ndox ba kenn mosu faa mën a jaar mhm. moom itam tali nañ ko tali bi pare na xëy na bordure yi moo des ci côté tali bi ndox mi itam ña nga ne di ci liggéey ci loo xam ne ñi koy liggéey un mois lañ leen jox pour ñu pour ñu livrer macha am su amee loolu moom day sotti mhm. euh, boo jógee foofu yi da ngay dem fu ñuy wax yoonu si xaw ga. Uh-huh. trente bu mag la bu am solo. Uh-huh. waaye am ñeenti point bas yoo xam ne ñeenteel ba moom kéemaan la daanaka xeetu dex la rek. Uh-huh. kenn mosu koo mën a jëriñoo moom itam. nga xam ne moom itam courage dëgg sax moo tax ñu sóobu ko. waaye bu dul woon loolu moom dañ ko fay dégg. macha allah dem bàyyi ko. waaye ci ndimbalul yàlla. moom itam def nañ lañ war a def ba jaarale fi tali ba ba jéggeeg moom ba dem ba ca fa mu mën a yem. moom itam ñi ngi nii ci travaux yi fexe ba bu ndox mi ñëwatee du dem ci kër yi waaye dana am fu mën a dem allah ci liggéey am solo moom nekkul ci réseau bi waaye waaye ay puits d'infiltration uh-huh. wala wala waaw lu am solo la daal uh-huh, uh-huh. nga xam ne ni su ndox mi ñëwee daañ ko fa mën a mën a mën a dana fa mën a nekk dana mën a mën a nekk du dem ci kër yi dootul lekk ci kaw bi waaye ci barab yooyu lay ne bu ñu bëggee jëriñoo jëriñoo bu dul loolu ñu bàyyi ko mu dem ci suuf si kon loolu itam euh, ab liggéey la boo xam ne mu am am solo la foofu rek ñeenti point ba mi fa. Uh-huh. booy dem ci penku bi itam kër sa Ñaan Diop. trente bu mag la bu am solo ci dëkk bi. waaw booy génnee biir bi di jéggi corniche bi rek. Uh-huh. ndox mu baree baree baree fa. Uh-huh. waaye moom itam tali nañ ko euh, ba raccordé ko ci tali Daara Jolof bi. point ba bi ëpp solo mi ngi ci bunt bi moo ñu fa taxoon a teg suñu loxo. waaye itam boo nee ba fañ ko raccordé ak tali daara ba foofu it am na jafe-jafe. Mhm. moom itam day am ndox. waaye moom itam ñi ngi ci solution yi bu dee fii euh, daanaka mbay mbiram sotti na ndax def nañ études yi ba pare. Mhm. ba regard yi fa war a dem sax daanaka takk nañ ko ba pare. Mhm. moom itam dañuy xaar rek ndax benn commande buñ defoon ci ay matériels yi ñu fa war a def. te egg seegul te ki ñu ko war a livrer. démb démb la joxe woon rendez mhm. kon xëy na euh, ci lu matut semaine danañ ko tàmbali. Mhm. te gis nañ ne moom ak niñ koy ñekkoo incha allah liggéey boobu du yàgg. macha allah moom itam ñu def na fa ay làmp. macha allah ci làmp bi muy def def na ko ay làmp ba léegi macha leer na. Mhm. te lépp lu war a ànd ak tali rek ci norme yi gën a baax incha fas nañ yéene def ko fa. macha kon loolu bu dee li nga xam ne moom lañ sumboon daaw. foofu lañ ci toll. ëpp ëpp solo pare na. bu ñuy wax daal mën nañ jàpp ne am na ñetti rek point yuñ ci laalagul mhm. dañu mujj liggéey bi yaakaar dañu ne nañ fexe ba luñ laaloon ñu féetale ko boor pour soog a song yooyu loolu moom laalaguñ ko mhm. moo ci gën a néew itam ay problème macha allah ndax daanaka du du woon lu am am solo donte mhm. nag ay point stratégique la yoo xam ne bu ko solution solutionné dina mën a saafara lu bëri incha allah waaye bu dul loolu te buñ bàyyee yooyu ne laalaguñ ko am na yeneen yoo xam ne mujj nañ ko jëlaale te bokkul woon ci naal bu njëkk waaw nit ñi biir résidence bi ñu nekk sëñ Touba gi sëñ bi dañoo sant ne dañ defar assainissement bi mhm. ñi ngi ci mhm. ñi ngi ci ba ba fi ne nii pare na daanaka mën nañoo wax ne pare na mhm. euh, booy dem tali Touba Ndiarème ba ca kaw amoon nañ foo xam dafa am jafe-jafe bu métti ci wàllu dem beeg dikk bi moom itam bokkul woon ci programme bu njëkk doonte seeti woon ne waaye bokkul woon ci vingt points yi ñu sélectionné woon uh-huh. moom itam jëlaale nañ ko ba da ngay ca di ko liggéey uh-huh. pour rajee ko ba nga xam ne nii léegi dootuñu am jafe-jafe ndax tali boobu it daanaka ñuy wàcc ilaa Touba bi dugg si dëkk bi ñu bari fa la ñuy jaar uh-huh. moo jaar ci to escadron bi ñëw am nañ ci ay solution ndax ñaari point yu njëkk yi defar rek mooy bi génnee corniche bi jaar fi ñuy wax isil xorom bi nga xam ne moo jógee nii ci deux voies yi dem ba ci kaw amoon na bu jafe boobu itam fi mu ne nii ñu ngi ci pexe solutionné ko. incha allah waaw ci ci ci ci tënk daal. waaw xam naa liggéey yi bari na. macha allah waaw may wax ne li may calcul ñu ci lu mat quatorze sànc. Mhm. Touba ca kanam mi yoo xam ne ni mi ngi di dox. macha allah waa foofu xam naa sax fi la ñu ñëwee ci suñu deuxième partie bu ñu dellusiwaat ak yow ginnaaw bu la euh, jaajëfalee ci euh, li nga xam ne moo nekkoon daaw bi ñu tolloo ci waxtu wi jëm ci mois d'août bi. yëgoon nañu ne màggal gi mën na laal ci nawet bi ngeen tàmbale woon benn jaayante pour jàppoon ne 300 ba 350 millions xëy na bu ngeen ko amoon dina jàppale waaye dafa am jàngat boo am solo bu ne ci biir kàddu yi noonu wax xam naa su ma ñëwee ak sëñ euh, euh, Mamor Mbacke moom mi fi nekkal waa scientifique ak culturel loolu dafay dugg ci aqida muy pas-pas euh, crise bi amoon daaw ak ni mu demee ngeen démarré 350 millions dem ba ci daanaka lu jege ñaari milliards. loolu mën na ne bokk nañ la ci kiimaani Serigne Touba yi ndax euh, ni ñu ko waxee daaw ku ne xam na ne nit ñi toll woon nañ ci di xalaat lii kañ la fiy jógee ku ne xalaat nooy def ëllëg ngeen engage projet wu 300 millions doyut ngeen engagé waat ba génne 1 milliard 600 yu tegal ci daanaka loo xam ne bu ñu xoolee benn weer lay doon ndax def naa mois d'août lañ ko commencé woon xaw ma 8 août xaw ma septembre def naa un mois daal la ñu waxoon daaw bu ñu xoolee ne ci la jaayante bi amoon ñu génne 1 milliard et quelque. donc loolu yaakaar naa ne dafay delloosiwaat ne li nga wax léegi ne sëriñ bi jógu fi euh, fi mag ñi nekkoon ba suñ ko woowee mu ñëw yaakaar naa ñun ñoo war a nekkaat foofu euh, ñëw directement ci sëñ Mame Mor euh, Mbacke mi nga xam ne moo yore wàllu scientifique et culturel balaa ñuy dugg ci commission boobu nga xam ne bu nee dëkk bi ne daara bu ne dëkk bi ne jàng bu ne dëkk bi ne yar mais balaa loolu bëggoon naa lii sëñ Cheikh naa wax léegi li leen yóbbu ci fi jamono toll yëguñu ko waaye ñu ñu ñu sëmbal sëriñ bi lu toll ni 350 millions dem ba milliard gën ci ak lu top loolu boñu ko bëggoon jangatal en tant que membre scientifique lan ngay wax deuxièmement nak dañuy ñëw ci commission scientifique et culturelle fan la toll ci daara ji ak taxaway bi muy am ci dëkk bi ak ndax ñi ngi xalaat ci loolu dana mëna dajalé eh, li ñuy gënne té mu doon lu lew ci dëkk bi man ko dajalé fo xamné ñi ko yeewoo té yelloo man ci jot do am ben jëf jëf seigne Mamour Mbacke bismillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah ñoo ngi nuyu bokk yëpp te di leen siyaare ñoo ngi baax seen mbéytam di nuyu président di nuyu seen mm-hmm. bu baax ci jotaay bi xam ne rek ne Touba Ca moom xam ne la ko laal rek mooy pas-pas ak Pastef xam nga loolu moom rek xam naa ci li ñuy jàngate li nga wax ni mm-hmm. ndax boo xoolee boo dee ginnaaw tuuti du ñu gas bi njaaree bi. Ah, waaw waaw Tuubaa. Hmm. Euh, kon xëy na loolu bu ci fekk leer da nga mën a xam ne. Hmm. pas-pas yi moom feeg mi ngi fi rek lim ko mën a yaay. incha si song song rek mu tënk xamal ne pas-pas yi moo moo yorom. Hmm. waaye bu dëgëree rek lépp tax Sëñ Tuubaa ci boppam du fi jóg loolu moom lu wér la kon nag ni ko war a jëmbal lay tax mu mën a jëmm loolu ci seen biir lay nekk. loolu moo waral lii. macha allah waaw ñu ngi sant bu baax baax. alhamdulilah alhamdulilah xam naa di ñëw rek ci commission bi ñu nekk cercle gis ne Touba Ca Kanam bu ñu ko sosee daanaka mën naa ci déwén si rek lañ taxawal commission boobu. muy scientifique et culturel. ndax Touba Ca Kanam comme ni ko sëñ bi waxee ak sëñ bu Fata dafa am problème ci wàllu santé am ko ci wàllu environnement noonu la ko amee ci wàllu éducation. surtout daara yi. ñu xam ne Touba ca kanam dafa jox éducation tamit wàccuwaay bu mag a mag a mag donte nit ñi xam nga ni ñu ko war a xamee. Hmm. waaye jox na ko yitte ju rëy rëy rëy. ba tax ñu gis ne Touba ca kanam moom solution la. xam nga nag comme solution la dañoo war di diagnostiquer lépp lépp luy problème ci dëkk bi wutal koy solution. Hmm. ñu ne kon nag euh, commission bi mu la ñu dénk euh, éducation. Hmm. éducation nag ñu gis ne euh, amul benn mbooloo bu mën a jëm ci kanam wala benn dëkk te éducation bi jëmul ci kanam. tey ñu comme ay jullit di ay murit ñu gis ne alxuraan mooy ndey xam-xam yëpp di ko Sëñ Tuubaa waxee nee na astu loo mi maan mhm. nee na xam-xam yëpp alxuraan moo leen moo jur mhm. moo tax ñu tàmbalee liggéey bi ci daara alxuraan yi ñu gis ne bi ñu taxawalee kuréel gi ba am ñaari at ci lañ door a def ay activité xëy na yoo xam ne mën na mas na ko tudd mhm. muy 2019 ñu ne kat mu ñoo tabax ay daara waaye mën nañu fekk daara yi am ba pare la xam dañ ko yittewoo tey tax njàng ma mën a mën a yell ñu taxaw ca loola. Mhm. mooy def leen ay mbaar ñu yoo xam ci la ñuy jànge ay wanag wala bu fekkee amuñu ñu dëkk ñu defal ay ak li ñuy wax mur de clôture. Mhm. année boobu 2019 35 daara def naa dong lañ ci jotoon réalisé. Mhm. ànd koog nag euh, wax tamit si nga xam ne ñoom boobu ba léegi ñu jàpp di jox ci daar yi ndimbal. di leen ay basang ak yu mel noonu. boobu 2019 mën nañu loolu rek moo ci jot a réalisé wu. teewul nag. projet yi moom wax dëgg yàlla bëri na. Mhm. jàpp ma ne sax danañ ko mën a lim ci jotaay bii. ndax bëri gu mu bëri. Mhm. bi ñu ñëwee ci deux mille vingt ñu yokk lim boobu ba mu nekk soixante onze daara. Mhm. waaye nag ñu yokkaat ci nag euh, li ñuy wax formation sëriñ daara. ndax ñu gis ne daara yi dafa bëree gàllankoor yoo xam ne bàyyi ko wut ci bon wala sikk wala ñàkk yéene. waaye mi bàyyi ko ci ñàkk xam. ndax xam nga tamit fii rek fii rek la am di ko jàng ba bay jàngale te jaarut benn formation. ñu gis ne conséquences yi bëri na lool ñu ne kon nag ñu taxawal formation former seriñ daara yi. Mhm. ñu waxtaan ci lu yàgg yàgg nag ak mboolem ñu seq ak Touba ca kanam. Mhm. ñu dem ba trouver rek matière yi yoo xam ne ñeent yii moom kii jàngale mënu ko ñàkk. Mhm. bi ci njëkk mooy ilmu tajwid tajwid kenn mënoo jàng alxuraan bu baax te jàngu tajwid. déedéet yàlla dafa wax ne tartil la yàlla wax. waaye waxut tajwid tekkiwul neexal baat. tekkiwul naaral. waye moy atté yi nga xamné moy loi ñu jàng alcorane xam ko hmm. boy jang alcorane diko appliquer appliqué moy mooy hmm. tajwid ñu ñëwaat né nañ indi benen topp moy ilmu nafs manam li ñu wax psychologie ndax ko yor xalé faaw nga xam lan mo leen wutalé ci li ñu wax al furuqul fardiyya manam lu wutalé xalé yi lu tax ci hmm. di gaaw mokal lu tax ci di yeex mokal lu tax ci di gaaw mer lu tax ci boo ko dóoree jangati yépp ñu ñu fexé ba ñëkke man ko xam man ko natalé ci xalé yi nga xam kon tam loolu tam mëna ñu jàpp ne kenn mënu ko ñak bu fekké da nga bëgg jang alcorane karim bi ci top moy turu tahfiz moy programme téré bi ba nga xam di nga man ne kat dong ak bu ñëwee ci dara ci bu fi jangé ñenti at di jël nangam ak nangam par bis di nafar nangam ak nangam bo am ñent ñenti at bu fekkee xel mi dëgg doomu na dara bokk alquran loolu lepp jang koy ci xam-xam mhm. bi ci top moy li ñu wax ah, ah, manam gestion man management ñu ñu géré dara mhm. parce que loolu yittewoo nañ ko ndax dara société la comme société yépp mhm. ndax ay ñi dafa nek ak matière bu ñuy bu ñu bëgg a transformer ak nu ñu koy transformer. Mhm. ñu ne ko nit ki laaj nañu jàngal ko gestion bu tax mu mën a gérer daara. Mhm. ren jii def nañ ci def nañ ci daaw benn boo xam ne euh, jàll na ci cent quarante sëñ daara. Mhm. ren bi année bi it bi mu ñëwaatee defaat nañ ci cent sëñ daara te fi mu toll nii incha allah rabbi la weer neuf bi war nañoo commencé boo xam ne war nañ cee former deux cent sëñ daara. lépp war na nekk quatre cent cinquante sëñ daara. ci ñaari loolu tamit ñu ne lu am solo la. waaye nag programme ren yi moom ci 2021 moom dafa bëri. Mhm. am na ci yoo xam ne ñu ngi ko tàmbali réaliser am na ci yoo xam ne xëy na man naa am ci kanam. Mhm. waaye mën nañu ci dàpp rek ne ñeenti programme yi moom. Mhm. mooy programme phare yi ñuy wax ci année bi. bi ci jiitu mooy euh, jël lu mat soixante soixante daara. soixante daara soixante waaw. daaw ñu ngi doon def daaw bu nekk quatre cent cinquante mille xaw ma cinq cent mille sept ren ji ñu yóbbu ko ba un million deux cent. macha ndax bëgg bu ñu fa jaaree ñu xam ne kat. kii ba ñëwee fajal nañ ko soxla mhm. ndax ñëw ci daara dem fa ba jaar te kenn xamul jaar nga fa gisuñu ne boobu loolu am na importance moo yokk mu àgg foofu yokk tamit soixante daara yokk budget bi ngir loolu mën koo réaliser mhm. incha allah euh, bi ñu jëm lañ bëgg a tàmbali liggéey boobu mhm. ñaareel bi mooy euh, li ñuy wax daara publique tubaab kanam da ko bëgg a taxawal bëgg koo tàmbali ren bëgg mu nekk lim bu bëree bëree bëri waaye nag mu bëgg a tàmbalee ci ñeenti moom barab yi fi mu ne xeer bi moom tamit Euh, dimanche incha allah rabbi. Mhm. ñu ko bëgg teg mu bëgg a nekk daara ni muy demee mooy dañu fay jël euh, daara bu nekk kenn du fay dara. Mhm. dañuy jël ñaar ko juróom góor ñaar ko juróomi jigéen ku jàngale ko góor ku jàngale ko jigéen. daara yi daara yi jàng ñibbi la. da ngay xëy wàcc gont wàcc ñibbi seen kër. te tey dañ ko ubbil ñëpp nag. doo ko tànn itam ah ñëpp lañ ko ubbil. bu ñu ko sélection itam amul benn parparloo. Mhm. ku njëkk a bind rek yaa ci gën a ñu bëgg rek lim bi moom bëgg ñu dem ba xëy na mat juróom fukk ba téeméer dara ndax mu mu mu tas dëkk bi yëpp yëpp ba ñëpp mën a am ndax tubaab dañu dañoo gis ne. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ayib la. Mm-hmm. gone juddoo fi màgg fi ba nekk mu kàllaaf te mënut a lire alxuraan loolu moom ayib la. ñu mm-hmm. xam nañ ko la xamuñu ko. ci dëkk bi waaw waaw ah, loolu nag lañ bëgg lañ bëgg a xeex nag. ci loolu ci euh, ah, jàppale te tubaab kanam gépp. bi ñetteel bi mooy li ñuy wax euh, ndabul daara. ndabul daara ndabul daara waaw mooy daara yi nga xam ne du eh, du internat dañuy jang nit ñi di yelwani mhm. ñu gis na yelwani bobu ñelwani yelwaani galan ko gàllankoor jur ci ci ci daara yi mhm. bi ci jitu moy waxtu wi waxtu wi day manki ba gona ci day tax lim fa tok fa mu tofalu ko do loolu sax mhm. fikk waaye xamal sax idée bobu ci Seydou Fara mi la bàyyee ko macha ñu nañ ko taxawal bu ko tuwaay kanam moom au lieu daara yi dem yelwani moom mu dem ci kër yi jox leen ay bol eh, képp ko xamne ne gëna ji la bis bu nek nga tibbalu ko ak reer ak ndekki japp na la bu ko defon te ñepp and ci mën naa wàññi bu baax yalwaan bi inshallah te su boobaa nag di nga mën a forcé sëñ daara di leen téye leen dong yi ci daara ji ndax mhm. bu fekkee amuñu dañoo am jafe-jafe lekk mënu ne kenn téye sa dong bu mu génn mhm. bi ci topp mooy baytu zakaat baytu zakaat baytu zakaat mhm. ndax gis nañu baytu zakaat moom euh, dafa war a am tubaab yàgg ndax azaka ponk la ci diine moo julleeyam te ni ñu ko ni ko tubaab yi fi ñu ne gis nañ ne joxe gi moom sooxe na bu baax a baax moom asaka asaka ñii duñ joxe ñii dañ ñu koy joxee baaxut ñii ni ñu koy calculer baaxut ñii dañ ko jox ñu leen neex dañ koy jël teg seen wet ku ñu mën a dimbale ba ñoon jox la ci mhm. te asaka nag suñ borom moo ko moo nekk diw ko moom joxal ma ko diw macha allah loolu nag dafay laaj ñu taxawal mbooloo moo xam ne mooy taxawee loolu bu ko defee nit ñi képp ku bëgg ñu jàngal la boo ñëwee bëggee ñu calculer la boo bëggee jox ñu génneel boo joxe ñu joxeel la incha allah loolu moo tax ñu bëgg ko taxawal di ci xaar incha allah ndigal sëñ bi xam naa jël am am nañ ndigal mhm. waaye bëgg lancement bi sëñ bi euh, xëy na dugal ci loxoom rek moo tax bay tàmbali tàmbali wut macha allah nag incha allah yi des ci nga xam ne moom moom la ñu préparé ci futur incha allah bu ñëwaatee ñu leeral ko incha allah jërëjëf sëriñ euh, Mamor Mbacke xam naa dinañ dellusiwaat sax foofu waaye ba tey rek ñu ngi jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoo ñu seetaan ci àdduna bi yëpp ci eh, Bichri TV ak Touba Monde bi TV ci seen eh, émission bu am solo bi nga xam ne eh, ñu ngi koy amal ci yaatal liggéey Touba ca kanam ci àdduna bi yëpp mu mel ni bu ñu déggee sëñ Mamour Mbacke bi njëkk mooy gis nañu ne taxawaay bu am solo bi nga xam ne doon nañ ko def ci wàllu daara mooy gis nañu ne dafa am ñu daan jàng alxuraan ba mokkal waaye du ñu mën a jànge du ñu mën a jàngale ndax nit ki mën na xam te du mën a joxe xam-xam loolu mu nekk benn matière dégg na ni ñu ko waxee ñaareel bi mooy euh, xale yi seen bopp faw ñu xam euh, yan bind lañu am kii day noppi kii day wax kii day gaaw a mokkal lay kii day tëdd nelaw ba yow doo mo doo ko mokkal loolu it ñu xool nit ku ne xam euh, nan la ko suñu borom bindee donc loolu mu nekkaat lu ama am solo loo xam ne mëntoon a ñàkk bi gis mooy taj wit loolu kenn mënul jàngale alquran te te te te te maîtriser woo ko mu mel ni kon Euh, fekkaat ngeen ñoo xam ne jàngoon nañu ba noppi waaye mënuñu am liggéey tey grâce ak formation bi ngeen def ñoo ñu mën nañu am liggéey boo xam ne non seulement dañuy am dara waaye ñaar bi mooy dañuy wàññil kilifa yi yàggaay bi seen doom yi daan yàgg ci daara yi ñetteel bi mooy day yombal ndongol daara li mu teel mën alxuraanu karim loolu kon mu nekkaat loo xam ne tey ci daara euh, mën nañ ko jàpp beneen bi mooy li nga njëkk wax ci pas-pasu yoonu murit li fi nekk moo ko fi indi nga indi bi kon ba ci kanam loolu it yaakaar naa dana am solo lool bokk yi di ko bàyyi xel ci ne nun ak lu man di xew dara mënu dox suñu diggante liggéey Sëñ Tuubaa loolu feeñ na ci biir beneen bi mooy formation bi 450 personnes ngeen def 500 mille ngeen doon xalaat ci daara ju nekk ren xalaat lu toll ci 1 million 500. 200 1 million 200. donc kon loolu day wane rek ne ba léegi Tuubaa ci kanam mi ngi dox jëm ci kanam ci liggéey boo am solo bi nga xam ne mi ngi koy def bi ci mujj nag muy booru daara tey bu fekkee yéen euh, dañuy wax ne nañ bàyyil waan bi dañuy wax ne nit saa bu ko ne bàyyil nangam. li xel nangu mooy dang ko nan jappal ci nangam yéen nak bu ngeen de xalat ci eh, xale yi baye yelwan bi eh, li ngeen ci jublu moy ben moy sen temps bi yag ci dar ji wàññeeku wax nga ko ñaaral bi moy sen xel dal bañu ñu dundu ñettal bi moy nit ñi waron di jaamu yalla ci jaamu yalla yi ngeen ubbi leen buntu bo xam ne dañ ut ndap ndax melna na ni bokku na ci li suñu borom gëna bëgg moy joxe ñam té loolu ubbi ngeen buntu bo xam kenn ku ne tay ci am lu mel non kon loolu dañuy dal japp ne wa scientifique et culturel def nañ liggéey bu am solo deuxième partie bi nañ ci dellusiwaat kon dañuy ñëw nag directement ak soxna Ndeye Marème Mbacke eh, vice présidente euh, commission féminine euh, toogal fi soxna Bintu Mbacke eh, ginnaaw bu ñu la ziyaaree li ñu lay njëkk laaj mooy eh, nan la waa su ma waa commission féminine di liggéey ci tubaa ngir ndax gis nañ ne versement yëpp yéen a ci man loolu kilifa yi wax nañ ko am ngeen secret boo xam ne xaw ma góor ñi dañ koo xamul xaw ma da ngeen leen see jiitu loolu bëggoon nañ xam nan ngeen def. ba soxna yi di mën am versement yooyu loolu benn la ñaareel biir mooy euh, yan xalaat ngeen am ci biir tubaa ndax jàpp nañ ne li fi nekk ëpp na un million de personnes soxna yi nan ngeen di def ba daayira maam jaara yi mbootaay yi soxna yi ni ñuy dajee ñoom ñëpp ñu mën a tàbbi ci liggéeyu tubaa ci kanam ñaari question yi moom lañ lay posé ñetteel biir mooy ndax soxna yooyu euh, gis nañu waa scientifique créé nañu emploi mooy def nañ formation yoo xam ne ñooñu mën nañ am liggéey am dara ndax yéen a ngi xalaat ci soxna yi ñoom ñu am métier mo xamne ne mën nañ ci am dara bismillah rahmaan jëm bismillah rahmaan rahim alaykum wa rahmatullah sëñ ba ñu ngi leen di siyaar bu baax baax hmm ngay def siyaar di siyaar sama sang yi nga xamne ne moom ñoom laa nekkal fii muy sëñ maam ak sëñ sëñ Abdou yi bi ñu ngi leen di siyaare bu baax baax eh, di siyaare ñepp nak ñaan sax ñu mu tax mu yàgg fi loolu lépp lu ñu naan liggéeyal Sëriñ Tuubaa. amiin amiin ñu ba euh, naan yeneen ak yeneen dañu ànd ko ak moom. Mhm. bàyyi ko dëgëral ko euh, dooleel ko. ba kàttanal ko bàyyi ko njaboot gi. amiin euh, ñu nit di siyaare Abibu ak mboolem ñu nekk kilifa yi ci kanam. Mhm. waaye ñu ngi siyaare suñu Abibu mhm. moo jiite soxna yëpp. ci kàddoom it laaj ci toll ak ndigalam. Mhm. xëy na li may def moom taxul ma kii ko waaye nag. macha allah ndigal la. ñun mhm. loolu mooy ndigal lañ am. incha allah jóg foofu ma ne ko mun jëpp dama jëpp. loolu moo fi tax a toog tey. Mhm. de ñu sant bu baax ci laaj bi. ndax yàlla xanaa li nga ma njëkk a laaj mooy jigéen ñi ban secret jigéen ñi de ban secret lañ am mooy li ci jiitu mooy positif. macha Pastef ak benn ndax euh, soxna yi de amuñu lenn lu ñu bu ndigal jógee. ñoom ñëpp ñu taxaw. ke ki leen jiite rek moom la ñu déglu. fu ndigal jógee ñoom ñëpp ñu taxaw te itam xam nga jigéen ñi soxna yi moom ñoom mos di ban ci lépp. ndax ñu wax ci bu baax. ba ñu euh, jigéen ñi ci mënoon. soxna yi lépp loo xam ne yëkkati nañ ci liggéey sëriñ bi ñoo fay njëkk ñoo fay mm-hmm. itam bu liggéey bi jotee soxla wu ñu dara dara dara du ndam li mm-hmm. ndam rek lañ soxla bi nga xam ne li ngi ci ñoom macha allah kon lu ñu song suñu borom daf ñu daan mm-hmm. ci biir loolu tamit soxna yi li ñuy wax li ma li wax léegi léegi ci benn ak posté waaye itam lépp loo xam ne xëy nañ di ko def suba ba jant bi soxla dañoo sóoraale li ñu war a def. Mhm. ci Touba. Touba ci kanam bu mu jógee dañu xam ne liggéey Touba ci kanam am nañu yéene waaye xam nañ ne lu ci dugg danañ danañ xam fom fom jëm. Mhm. te li ñuy laaj itam jëfewul kon ñoom war nañ cee mën a taxaw. Mhm. ñoo xam na ci ay fixation. ci booloo. ci ci ci ci kenn ku ci nekk am nga ci kilifa yi. Mhm. ndax yàlla dafa dogal ne ku ne jox nañ la sa cër. Mhm. te bari ay kilifa. Mhm. kilifa yooyu kenn ku ci nekk nag da jóg suuf sa daanaka képp koo xam muy xam sa taal bi muy ak ku sa am di jàmm. ñëpp kenn ku ci nekk te sol saw daal dem ci moom ànd ak sa activité ak sa caawarte. ak mbégte mi nga ne nii mooy xasee nit ñi loolu def naa ne su allah. waaw li ci des mooy ni ñuy def ba. soxna yi nekk Touba soxna yi nekk Touba yëpp bokk ci Touba. Mhm. defe naa bu doon fukki xaaj juróom-benn yi mbaa juróom-ñaari ñoom. macha allah. ñi ci des ñu ci yoon. Mhm. ndax li ma la wax ne la soxna yi dañuy jóg. Mhm. Touba ay daayira moo fi am. waaw. comme daayira moo fi am. te daayira yi kenn ku nekk am nga ko ko yaakaar mhm. ka nga yaakaar doomam a ngi ci wala sa dama ngi ci mhm. kooku bu solee aw daal dugg ci foofu mhm. yaakaar naa ne la fa dugg da koy am kon ñi ngi ci daayira yi maam jaare macha allah ñi ngi ci daayira yeneen yi nga xam ne nit ci yeneen kër rek Touba ci kanam xam nga moom du loo xam ne kenn ko moom déedéet ñëpp ko moom Serigne Touba rek ko tax a jóg kon bu mën a nekk ak ku mu a doon rek fas su dee mbootaayu soxna yi. Mhm. kenn ku ci nekk mbootaay bi nga nekk. Mhm. yaa nga naan nañ ko ci fukki dërëm def ñaar fukki dërëm di def nangam ñu mën a def ba weeru te mhm. lépp loo xamante ni koy def ñu ñu koy xalaat ci Touba ci kanam. ñoom fekk na ñu ngi te ñu ngi xalaat naka la ñuy des ba ñëpp bokk ci Touba ci kanam. ñu ngi ciy dox. ay jéego. soxna Bintu ku nekk xam na ne borom Pastef la. dëgg la. ku sawar la. toogul noppi. dëgg ñu ngi ci téléphone yi mu solo aw daagam te yaakaar naa ne nit la koo xam ndax li ñu wax ci doomu mbag kilifa la waaye day kilifa daanaka ñëpp. boo xoolee yoonu moom bi daanaka comme ci sa bàjjen sa maam. dëgg la kon kooku sañ naa taxaw ci ñëpp. sañ naa wax ak ñëpp. surtout ñun ñi nga xam ne ñun ñooy nekk taalib yi topp ci ginnaaw. kenn ku ne da sol sa daal di déglu ndigal fu mu la joxoon nga am. nekk. macha waaw ñu ngi si yoon bi ndax dañoo bëgg Touba ci kanam fu ci waay mën a la gis ndax kuy liggéey sëriñ bi war nga lépp war naa mën a jàpp. kon loo boo guddee rek loo bëgg rek nañ ko. dëgg la kon ñu ngi ci pexe yooyu. ñu ngi ci xalaat information yu war a def. te naa bëgg organiser wu ko. moo tax soxna yi soxna yi def benn lépp yëpp benn groupe. commission. commission waaw. commission bi am président. vice président. am secrétaire général. donc ay commission. commission yëpp am na. macha allah. képp koo xam ne soxna nga da nekk Touba Ca ci nga bokk. surtout kilifa yi muy diaspora bi. muy Afrique. mu mën doon rek. soxna yi ci nekk yëpp dañoo bokk benn benn borom. macha allah. nekk ci ginnaaw soxna si ñu di xëy di xàcc loolu loolu. moo tax ñu bëgg ba organisé woo ba pare comme ni ñu organisé woo. ñu ngi ci te loolu defe naa ne sax yàggatul ndax fan yii rek war nañoo ko tàmbali. incha allah ndax Touba Ca Kanam dana du xaar kenn. dëgg la. léegi ñun wotal nañu biir sëb vingt cinq millions. vingt cinq millions. pour ñu tàmbalee ko formation. macha allah. démarche yëpp def nañ ko ba tàmbali rek ci SDSR.

macha allah person par waa allah benn formation bu ci nekk. Hmm. ñu xalaat nag kon dëkk bi comme dafa dafa dafa dafa dafa yaatu. Hmm. formation yi macha allah quartier bu ci nekk fexe samp benn boo xam ne waa quartier bi ñu dëkk foofa dañ cee mën a liggéey. Hmm. suñuy liggéey ci foofa danañ ci jariñu ñoom la cay jógee jënd si waat bi. duñ am benn jafe-jafe mën a joxe seen i cotisation wala ñu mën a jaay butik macha allah euh, teewul itam ñu ngi def ay démarches dem nañ fi mel 3PT uh-huh. ñooñu itam lépp loo xam ne lu ñu war a def la suñu diggante ak ñoom def nañ uh-huh. ànd ci nag ak cawarte uh-huh. bu ñu sëkk ci ñoom ndax demee yàlla dafa def chef bi fi nekk dafa euh, dafa taxawal boppam am ci yéene bu ñu waxee sëñ xaari bu yàgg dafa dafa ne secrétaire bi juróom toogal boppam. dëgg a ju am ci Touba ci kanam. mais Touba ci kanam moom lu rëy la loo xam ne ko. Mhm. ñoom mhm. euh, mhm. nekk jur kenn ku ci nekk yàkkamte ngaa tàmbali ci Touba ci kanam. fii si ñu jox la ñu war koo remplir. ci soxna yi ak euh, individuel yi ndax dañoo bëgg muy góor muy jigéen ñëpp am gis seen bopp kon sëriñ si ci nekk am na formation yoo xam ne xëy na loolu ñoo ko war léegi diggante informatique bi lépp loo xam ne dañ koy soxla di ko defar Touba Ca Kanam war naa am lépp loo xam ne dañ koy soxla ci technique bu mën a moo xam ci courant bi la moo xam ci plombier bi la moo xam ci mhm. kon yow su leen déggee yéen yamu leen sax ci wutal soxna yi am xëy waaye xale yu góor yi sax jàpp ngeen ne war nañu mën a am xëy ci seen liggéey boobu. Mhm. ñi mhm. waaye seen doom yi mënuñ leen a yóbbu fenn. kon ñi ngi xalaat ci xale yu ndaw yi ñu ngi def ñoom itam ba ñu gën a sàmbale seen avenir. incha ëllëg eh, soxna ndey Marème Mbacke ëllëg ak si biir dinañ amal seen bopp njariñ amal ko seen i waajur xëy na foofu la ñuy eh, tënkee dellu siwaat bu ñuy dellu si ci ñaareelu parti bi eh, dañuy dellu siwaat ak sëriñ Abdoul Fattah Guèye ci jotaay bi waaye njëkk ñu ñëw rek mën nañ gis ne kon commission féminine def nañ liggéey bu ama am solo benn mooy am na ñaar yu ñu wax yoo xam ne loolu jàpp nañ ne mooy yoonu murit mooy pësteef ak bennoo lu ci ne rek l'islam moo ko santaane ndax euh, Pastef moom mooy nit ki dogu ci li muy def benn gi yàlla moo ñu ko njëkk sant kon mel na ni yéen secret bi mooy da ngeen a teel a tënku ci ndigalu suñu borom li loolu mën nañ ko jàppe noonu bi mooy kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee Touba ngeen waxtaan ak ñoom ba kenn ku nekk soññu mbooloom loolu mel na ni lu am solo la ci li nga xam ne yéen a ngi ko doon def euh, ñetteel bi nga xam ne moom moo ci nekk tamit mooy mbootaayu soxna yi gis nañu ne yéen waxtaan ngeen ak ñoom ci ku mel ni bàjjan bintu nga xam ne kilifa ñëpp la ni nga ko waxee kum dul sa waajur doon sa bàjjan lolit yombal na lu bare bare sen sen digënté ñom mu melni it euh, walu soxna yi formation euh, dëj yi nag ci di jaf jéego yu am solo lolit yaakar nañu né bokku na ci li ñu bare doon xaar ci tuba ci kanam waye li gën ci defaat nak politique bi gën defaat ci biir moy fexé ba gox bu ne ñafa gis sen bop ci formation bobu, mënal sen bop di joxewaat tuba ci kanam ñaari téeméer lolou nak moy li Serigne Touba waxon ne ci ñaar ko juroom ñett yi bu ngeen mënal sen bop di gën sañal sen bop mais bu ngeen mënul seen bopp nag keneen mën na leen sañal koo xam ne waru leen sañal loolu it mel na ne gis nañ ko ci li nga xam ne mooy liggéeyu soxna yi budget bi nga xam ne moom yeneen koy waajal tamit ngir loolu mën a jàppandi loolu it day wane rek ne Touba ci kanam ñaari téeméer yi muy laaj yemalewu ko ci rek dimbalee ko ñu néew doole waaye dina ci dimbale ñu am xel ak xalaat te amuñu lu ñu mën a jëfandikoo ba ñooñu itam mën a moom seen ngor mën a moom seen bopp kon loolu it nekkaat lu am solo ci eh, xalaat yi eh, soxna yi formation bi mun mën na jël ba ñaar nit ak juróom loolu it yaakaar naa ni lu am am solo la kon jàpp nañ ne daal eh, tubaat ci kanam ni ko oh, sëñ bi waxee démb mooy ci domaine yu bari lay intervenir dégg nañ fii wàllu ndox mi dégg nañ fii wàllu santé dégg nañ fii wàllu daara gis nañ fii wàllu soxna yi sëñ Abdou Fata bu ñu del see ci suñu deuxième partie Eh, gis nañ réalisation yi nga xam def nañ ko ci walu santé lan moy seen perspective manam lan ngeen nal ci année biñu nek ndax japp nañ ne juroom benn poste ngeen tambalon ñet yi libéré ngeen ko des na yeneen ñett eh, yan lan ngeen naalaat ci année biñu jëm biñu dugg ni manam biñu nek ni ci walu santé lo xam war nañ ko wajal mu jëm ci liggéey bi loolu nak day and ak wat nak mbokki talibi ci ne ñu xam ñaari téeméer yi ñu joxe moñu maylu nu am kon lu ne man na ne ci benn beneen bi mooy bu ñu xoolee tey murid yi population Sénégal bi ñu ngi koy xalaat ci fukki million ak juróom jàpp juróom benn sëñ Tuubaa jàpp nañ lu mu gàtt gàtt war na ci maanaam 40 pour cent wala 30 pour cent kon lu mu gàtt rek juróomi million mbaa mbaa lu ko jegee war nañ ko ci am ndax kenn ku ne warul laaj boppam lan moo tax ñaari million matagul loolu ñu soñwaat ci mbokk taal bi sëñ Abdou Fatah jërëjëf sëñ Mbaye Tène waxtaan wi am na solo lool xëy na fi ñuy tàmbalee ci laaj boobu mooy képp koo xam ne fi mu ne nii yaa ngi ci Touba kanam moo xam ci ku jege nga wala ko sori. yaa ngi liggéey ci histoire loo xam ne histoire du ko fàtteeti hmm. yaa ngi liggéey ci njàngaleem sëriñ bi loo xam ne lu àdduna bépp di bàyyi xel la te doon ko xaar hmm. ndax xam nga sëriñ bi ci wet gu ne la ko suñu borom defal may yoo xam ne moom rek la ko may dëgg waaye boo ñëwee ci wàllu développement économique naka jekk yoon wi da ci daan wane taxawaay boo xam ne kenn mësu ko cee fekk sëñ Mamor léegi mi ngi fàttali gasum raay bi ak yi ko jiitu woon yëpp waaye taxawaay bu mel ne bii Touba ca kanam am ak ni mu organisé woo dafay mel ne day ñëw di firndeel loolu. Mm-hmm. kon loolu day loo xam ne euh, euh, kéemtaan la. li ko def nag euh, li tax mu doon kéemtaan yomb naa wax bi ci njëkk mbirum sëñ bi la te lépp sax mbirum sëñ bi la waaye. ngir ñu jëm ci indi wax loo xam ne dinañ ci mën a dinañ ci mën a gën a déggee. wala ñu mm. firndeele ko li may wax mooy. Mm-hmm. dafa am ñuy wax ne diggante mën naa nekk ak mënta nekk daal doxu fa lu dul ak dogu. ak dogu ak yitteeg Pastef moom. Mm-hmm. ci sëriñ bi rek lañ koy jànge mm-hmm. sëñ Abdoulaye wax na ko léegi daaw bi ñuy tàmbali liggéeyu defar yoon yi 350 millions la ñu waajaloon. fi mu ne nii boo ko doon xayma daanaka jege nga deux milliards. diggante daaw ak ren. Mhm. bi ñu commencé ci poste de santé yi ay poste de santé vingt cinq millions lañ doon naan ndax boobu foofu la tollu tolluwaay tolloon. Mhm. ñuy réaliser ay poste de santé yu ëpp cent et quelques millions. loolu dafay tekki ne diggante mën naa nekk ak mënta ne dara doxu fa lu dul. dogu lu ak dogu. Mhm. bi ci toppaat mooy. Touba ca kanam actuellement nii moo ngi ci cinquante quatre mois ñeenti at ak ak juróom bu fekkee jël nga ko nga digg ñaari weer yu mu jiite mooy mais ak juin. Mhm. li Touba ca kanam récolté mi ngi ci cinq milliards et demi. macha allah milliards ak genn wàll. ñu dépensé ñeenti milliards yi ak genn wàll. ci réalisation yi nga xam ne moom la Touba ca kanam réalisé da ngay laaj ne ndax li ñu fi réalisé di ko fi lim nga xam ne benn partie boo ci jëloon doyoon na émission. Mhm. ndax loolu mën nañ koo def ci ñeenti milliards ak genn wàll. Mhm. bu dutoon liggéey Serigne Touba du mën a nekk. dëgg la bu dutoon nag liggéey boo xam ne al euh, liggéey bu jëm àllaaxira du mën a nekk. Mhm. ndax euh, li nga xam ne moo sonal gouvernement yi gouvernement yi ci àdduna bi rawatina Afrique. Mhm. mooy di def ay réalisation yoo xam ne amul priorité du priorité wala di def réalisation yoo xam ne lañ koy jënd waru koo jar. Mhm. bu dee Touba ca kanam nag li muy réalisé li tax mu man koo réalisé mooy. ñi koy réalisé day ñoom ñi nga xam ne ñoo koy defal seen bopp ndax Touba ca kanam ni ma ko faral di waxee mooy askan wi. Mhm. te nit ku nekk xam nga lan mooy sa yitte ji gën a far. xamal nga ko sa bopp. beneen bi ci topp mooy booy taxawu liggéey boo xam ne danga nga ciy wut ngërëm nga xam ne defoo ko rek ngir di ci wut àdduna. Mhm. fa nga koy teg ak fa nga koy xoolee la nga koy nangoo sonne ndax liggéey Touba ca kanam amul wàcc. déedéet liggéey Touba ca kanam. amul fonctionnement ñi ci nekk du du li ñuy wax association à but lucratif. du mhm. loo xam ne ñi ci nekk dañ naan dañoo war dañoo ñëw di ci wut si njariñ lu teew luñ mën a xëccoo ci wàllu alal ak wala daraja ak yu ni mel. Mhm. loolu yooyu ci daje moo tax Touba ca kanam mën a def réalisation yi mu mën a def ci montant yi mu koy waxee. Mhm. ndax ni ma la wax léegi ne la Touba ca kanam kuréel la goo xam ne liggéey bi amul wàcc. mooy guddeeg bëccëg suba néew na ñu toog bis boo xam ne du am réunion physique. bu dee réunion boo xam ne nag dafay jaar ci réseaux sociaux yi wala dafay jaar ci xaral yu yees yi lool moo non stop la amul taxaw suba ngoon bu dee ba ci nit ñi loolu nag amul benn liggéey boo xam ne nit ki dana koy def di ci daj coono bu toll noonu te nekkul ne dafa am njariñ lu teew lu mu cay wut lu dul di liggéeyal ku mel ne Serigne Touba lu dul liggéey boo xam ne àllaaxira nga ci dàkk nga njariñ mhm. bi topp mooy Serigne bi dafa bokk ci am njàngaleem mooy lépp loo xam ne ngërëmal yàlla nga ca bu leen ci ragal آه، فكل ما فيه رضا الله جرى فلا تخف فيه فلا تخف فيه ملامه الورى لب لو خمن غرمال يالا دا فتا نيك بولين تي راغال يادو نيت ني ولا واخي نيت ني ندخ تان غرمال يالا دا تي ليغي بي كون تي ويت غوغو لولو موي توبا تي مو ملني نك دفنا ندخ اوبجيكتيف بي موي نين كاي واخا دي ام 2 مليار بار ات ليغي بو باري باري لا دا فا لاج جيغو يو ري ري ري غير ني مان تي اغ تي كوتي اورغانيزاسيون اورغانيزاسيون توبا تي دغور نا دغراي بو خمنه Euh, lu mën a ñëw attan na ko. Hmm. waaye ci côté euh, dajale collecté xaalis. Hmm. te di ko jaarale ci ay reçu yu yu yu yu mille francs wala ay cotisation mille francs hmm. pour nga mën cee dajale yenn somme yu mag yi faaw nga am nit ñu baree baree bari loolu mooy tax léeg-léeg. nga gis dëkk yoo xam ne te loolu xam ngeen ci dara yéen waa diaspora ah, ñu ngi ci 65 pays am na ci dëkk yoo xam ne mën nañoo góorgóorlu mais seen i versement boo koy xool par rapport ak dëkk ba da nga naan dafa tuuti alors que tuuti wut wante montant bi bi ñuy bi ñuy récolté moo ndaw hmm. kon léegi liggéey bi dafay jëm nag ci massifier nit ñi pour ñu dugg en masse ci liggéey bi loolu moo indi euh, euh, baatu massification hmm. kon ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan taf fu ñu mën a nekk ci àdduna bi ñuy wax ne euh, li ñuy xemmeem ci dëkk yu mag yi te mooy bu dee ci wàllu santé bi nga xam ne ci nga may laaj sax mën naa ci jël comme exemple. nga xam ne mm. àgg nañ ci niveau boo xam ne jàpp nañ ne li ñuy wax mortali mortalité am xale yu ndaw yi. teel a génn àdduna daanaka bari na dëkk yoo xam ne jeex na fa. Mm-hmm. te li ko waral ci ci yii rek la tegu. mooy mm-hmm. am ay infrastructure te mooy ay batiment yu baax. Mm-hmm. am équipement. am ay personnel yu qualifié. ba pare am benn organisation boo xam ne mooy leen boole ëmb. yooyu yëpp nag dajee na ci biir yoon wi. Sëriñ Tuubaa fàggu na ko. lan moo des. moy ci ci ñun ñi nga xam ñokoy taxaw. fu ci hmm. suñu euh, ak suñu pass pass ak suñu euh, gor gor lu fu ci ak fu mu ca toll rek foofa la foofa lañ ca toll. waye buñ ko fuñ ca bëgg ag man nañ ko caa àgg. Hmm. li tax may wax loolu mooy euh, taxawal nañ ay structures de santé. Hmm. ñi ngi liggéey ak district sanitaire bi ministère de la santé pour ñu affecter personnel. ñu ngi leen di ñaan ñu indi fi personnel bu qualifié ba pare mën a composé ak dëkk bi ndax dafa am lu ñuy wax texte ak contexte. texte yi mooy luwaaye yi ak règlement yi li mu bind. mais mhm. contexte mooy réalité bi ngay fekk ci terrain bi. li baax nag ci euh, ku ñuy affecté nga nekk ab fonctionnaire ñuy fañ lay yóbbu boo demee nga jéem a adapté adapté wu ca contexte ba. Mhm. moo tax nga mën a am ay résultats te loolu mel na ne ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu comme bàyyi nañ ko xel. Mhm. ñi fi affecté fii ci agence bancaire yi fi nekk dañuy toujours dañuy jéem a wut nit koo xam ne dana méngoog dëkk bi ñu indi fi ngir seen i résultats ba nekk ba gën a bari. te loolu bi ci toppaat mooy. Euh, mu nekk service de qualité boo xam ne dañuy relever niveau bi dañuy yëkkati niveau bi bañ koo yemale rek ci fi ñu tolloon ndax nit ku nekk kem tolluwaay sa góorgóor lu ci la suñu borom di yéegale ci sa say mbir euh, jamono toll na foo xam ne ab malaat warul ñëw fii tey jii faju ñu dem ba amaat un an wala deux ans mu ñëwaat di fa faju nga naan ko lan mooy sa groupe sanguin lan mooy sa rythme cardiaque wala yu ni mel du bëgguma dugg avancé trop ah, technique bi nga xam ne du sama domaine hmm. li ma bëgg a wax mooy information yi mën nga ko am informatiser ko de telle sorte bu nit ki ñëwee information de base yi nga wara a xam ci moom da nga koy teel xam ci moom téléphone portable yi ñi ko liggéey intégré nañ ci système yoo xam ne nit ki bu ci defee ay information yu jëm ci wàllu wér-gu-yaram bu yàlla demee ba yàlla natt ko mu nekk ciy jafe-jafe service sécurité yi bu ñu ñëwee mën nañoo xool téléphone am xam kii fan lañ koy jaar lan lañ ko war a njëkk a defal daar daar loolu lu mel noonu nag mën nañ ko adopté ci poste santé yi mën nañ ko adopté ci lépp loolu technologie bi du lu li hmm. li li am solo rek mooy volonté ak organisation ak am pas-pasu dem ci hmm. bañ cee jiital nag politique bañ cee jiital mën a mën a bañ cee jiital yi nga xam ne yëpp mooy indi gàllankoor ndax mhm. réew yi ko réussir yëpp wet googu lañ jaare ba réussir ko mhm. kon ren jii bokk na ci liggéeyu Touba ca kanam ci wàllu santé mooy mu taxawalaat yeneen ñetti bërëbu fajukaay mhm. ñetti bërëbu fajukaay yooyu nag décidé gun fan ak fan lay lañ koy defee ndax Touba ca kanam li muy góorgóorloo ci dëkk bi mooy réalisation yi mu fiy def mu bañ a nekk loo xam ne ay orientation la ci ñenn ñi ni ñu koy bëggee ndax nit ku nekk boo sañoon sa gox dina soqali ko ci wet waaye bu kenn ku nee ne sama gox sama gox sama gox Touba ca kanam du mën a def li mu bëgg kon li ñuy def mooy dañuy ànd ak waa district bi ñu joxe orientation yi ñu xool jàngat ba gis ne gox bi ak gox bi ak gox bi ñoo ko gën a yittewoo ñu samp ko fi mhm. ci biir loolu ci la ñu fas yéene sampe loolu li ma doon waxaat léegi jëmaat ci euh, euh, wàllu mutuel beeg yu ni mel loolu moom fas yéene nañ mu taxaw ndax commission sociale bu Touba ca kanam li muy dimbali ci aw nit ci wàllu wér-gu-yaram mhm. ci ordonnance jàppale leen ci mpac bu ñu amee mutuelle de santé mën na cee teggi lu bare bare mhm. te dëkk bi yàlla dogal na bi ko sëriñ bi wootee yërmande ji tax na mhm. fu ne la waaye dala ñëw fi am na ñoo xam ne bi ñuy daw di ñëw mën naa am mënewuñ ko nañu ko bëggee tax na léeg-léeg bu leen wér dig yaram gaaree moom jafe-jafe lay doon te bu ñu amee mutuelle de santé jërëjëf sëriñ Abdou Fata ah, mu mel ni foofu ngay daaneel rek waxtu wi xam naa mel na ni ñu njëkkanteeg moom xëy na sax jàngat bi ñu waroon am ci waxtaan woowu xëy na bu ñuy tëj ci lañ ciy ñëw incha allah rabbi eh, dañuy ñëw rek ak sëñ eh, eh, sëñ Cheikh Abdou Mbacké borom dër bi gis nañu ne fi mu nekk nii am na ay puits d'infiltration yoo xam ne ak fi ñu toll ci naat bi xëy na du zone yëpp ñooy soxla ay canal ci tënk rek ndax loolu yéen a ngi ci liggéey boobu ci année bi ñu nekk. ak ñaata sit ngeen localisé bu pour war fa def liggéey yu mel ok jërëjëf euh, sëñ Mbaye Kane ñu ngi lay delloo ziar bu baax waaw ni nga ko waxee euh, daanaka barab yu ci mënul dem ci réseau bi rek ay puits lañ fay def puits yi nag mais puits d'infiltration la waaye mën nga wax ne puits de rétention la ah. ndax day am capacité mën a mën a jël ndox bi waye itam am capacité mën ko mën ko injecté. ok ci ci suuf si. Mhm. Euh, bu ñuy xool tey ci barab yi nga xam ne koy def lu mu gàtt gàtt mat xëy na mat waaw. point ngi fay def ay de puits yëpp yi jël di ko ok 128 puits la waaye nag puits yoo xam ne. Uh-huh. par rapport ak ni ñu xamee woon puits d' infiltration yooyu moom melul noonu wax dëgg uh-huh. ci bi. Uh-huh. ak euh, lu ci ne moom moom ràññeeku na lool. macha allah na yu am am solo la yoo xam ne moom euh, lu ñu wéy di mën a jariñoo la ci jamono bu mën a doon. te mën naa saafara lu baree bari ci jafe-jafe yu ñu am. ndax li gën a indi puits sax dañ koy xam que ni am na réseau bu fi newoon boo xam sëñ Saliou moo njëkk def assainissement ci dëkk bi. Hmm. ginnaaw bu sëñ laat assainir jumaa jeeg li ko wër. Hmm. te moom it ay xeetu puis sax la ko defoon. waaw li muy woon foofu ci ci li wër jumaa ji. Hmm. sëñ Saliou moo amoon pas-pasu moom njëkk gas euh, branché def luy niru assainissement ci dëkk bi. ginnaaw bi état bi ñëw fekk si ko ci jamono jamonoy Ablaye Wade ñëw président bi fi nekk am na lum mu ci dolli. waaye bu ñu koy xool tey dëkk bi ak ni mu rëy ak li fi ay point ba ak déficit bi mu am ci wàllu wàll yëpp nag. waaw yëpp Fata joxe na ci lay exemple. ci wàllu santé mhm. waaw wàllu santé daanaka booy seet nag domaine boo dem am na gàpp bu toll noonu wala bu ko ëpp. macha loolu tax na kon dëkk bi am na jafe-jafe bu baax a baax ci wàllu assainissement. Mhm. ci loolu nag li nga xam ne moom la fi jot amagum te ñu ngi koy sant yàlla di gëm ne luy yokk la te li ñu si dox ci jéego na ci xel. Mhm. Euh, dafa tax bassin de rétention yi fi am nga xam ne mooy téyeegul ndox mi mhm. amagul capacité mën a recevoir ndox mi mi war a dem mi fa war a dem yëpp Touba mhm. Ca Kanam dolli na ci lu bari mhm. am na ay site yu ama am solo yu bari yoo xam ne ci lañ ko ci lañ ko def grâce ak waa ONAS bi nga xam ne ñoo ko seq te jàpp na nu ko lool ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm waaye li liy wàcc ci ndox lépp ak barab yi ñu defar yëpp xajul ci ci réseau boobu. réseau boobu bu cee def wala bu cee def danañ indi yeneen jafe-jafe. Hmm. loolu moo indi sababu sababu pii. pii macha allah nga xam ne daanaka amuloo choix. Hmm. loolu nga mën a def. Hmm. jàppandi ci euh, bu ñu jógee ci loolu nag comme am na am nañ plan directeur assainissement bu dëkk bi. li ñuy jéem a jublu nag mooy xool am ak ñi ñu ko war a àndal ñu xool lan moo war a nekk dëgg dëgg solution. ci assainissement bu dëkk bi. globalement. ñu liggéey ci loolu nag étudier xool naka lañ koy sonn. assainissement. Euh, xëy na ci lu mën a ñàkk nga ko mën a defee ay pàcc pàcc waaye benn réseau la war a doon lépp war a ànd itam mhm. waaye am nañ jafe-jafe dëkk bi amul géej mhm. euh, bu fekkee ne xool rek tey jàpp naa ne bassin bi nga xam ne moo fi am da nekk ci côté Saalum bu dëkk bi mhm. nekk yoon ne moo fi amagul jaadu na tey yu ni mel yu ni mel wala yu ko ëpp fuuf ñeent xib lay dëkk bi yëpp ñeent xib lay dëkk bi yëpp fu ci ne war naa mën a basin bassin bu ëpp boobu bassin bu ëpp boobu. bu ko defee su boobaa loo ci drainer rek mën ngaa seet fa mu gën a jege. nga dugal ko fa réseau bi itam nekk lu global. loolu mooy réalité normal bi. Hmm. lii nag moom xay na comme moom lu lu mënul ñàkk la te dëkk bi laaj na ko te mënuñu woon a seetaan. Hmm. loolu lañ engagé. Hmm. waaye ci loolu lañ jëm. mooy lépp ñu teg ko ci anam bu mu gën a baaxee rek. ngir mën a def la gën a baax incha allah. incha allah jërëjëf sëñ Cheikh Abdou Mbacke xam naa du ñàkk ne ci yeneen i jotaay dinañu dellu si waat ci réalisation ndax mooy liggéey bi nga xam ne moom moo taawu Touba ci kanam euh, kon dañuy dellu si rek sëñ maamoon Mbacke xam naa waxtu bi nag tënk nañu xëy na ñaar ba ñetti minutes rek euh, nga tënkal ñu euh, ci fi nga tàmbaloon sànq mu lu jëm ci wàllu bayti zakat boobu fan ngeen ci toll ak it lan ngay dénk mbokku taalibe ci ñu mën a waajal surtout ñi nga xam ne nag am nañ dara te am na nuñ koy joxe waaye xëy na bu jaar Touba ci kanam dinañ ko jox dëgg-dëgg ñi suñ borom tudd ne ñoom ñoom lañ ko a jox. bisimilah rahmaani rahim ñoo ngi nuyuwaat bu baax a baax loolu moom li ñu ci wax rek mooy daal ñëpp xam ne bayru sakaat li ko tax jóg rek mooy jàpp ndalal nit ñi ba ñu mën a joxe seen fardu ayn yi xam ne war ci muy asaka ndax ku mu war a joxe woo ko bàkkaar bu rëy rëy la. Hmm. alal ji fekk asaka ji génnul rek xamal ne alal ji lewagut. kon nag taxawaay bi bi ñu bëgg a taxaw rek mooy euh, bu ñu koy taxaw ñu sàmmoonteeg li ci war a am. Hmm. xam ne Touba Kanam ak bayru sakaat kenn wula jaxas seen ay maanaam seen opération hmm. ndax bii moom volontaire la benn nag ndigal suñu borom la hmm. Touba Ca Kanam nag moo ko sos moo koy coordonné moo koy doxal hmm. waaye dañuy ber asaka la ciy génn ak li génne ci ñaati téeméer ñuy joxe ndax suñu borom ci boppam dafa mel ne dafa xam doomu aadama ba tax lépp luy séddale bàyyi ba ko doomu aadama moo xam miraas la moo xam asaka la day wax ne génne nangam ne joxal ma ko diw amoo ci benn taxawaay yóbbul loolu. lim bi ngay génne ak ki nga koy jox moom moo la ko wax. waaw. Hmm. waaw loolu moom moo tax ñu bàyyi xel loolu baax a baax. te di ci woo ñëpp nag di xaar eh, mu jox ñu ndigal rek. lancé hmm. lancé ko incha allah. xam naa rek di tudd rek xëy na yi nga xam ne mi ngi mi ngi ci suñu kanam ci ay yoo xam ne nii tàmbalikuñu ko waaye hmm. incha allah fas na mbokk ci liggéey Touba kanam bi ci njëkk mooy tabax centre de formation soxna si xam naa ne loolu dana sawar dinañu ñëw incha allah mooy suñu jafe-jafe. allah am nañ ay euh, partenariat ak OFNP ak euh, soxna sii bi ñu kii yëpp pour def information waaye fu ñu ko defee ba léegi nii kàllankoor la. ñaareel bi mooy tabax école modèle école boo xam ne modèle lay doon. école modèle. modèle waaw. xam ne ki jàngal xam bu jàngal xam bu mokkal. doom problème bu dugg ci foo xam ne doon mën a jàng jàng moo xam ne fee la nekkoon te te doon nuru tardement ndax ndax alxuraan moom ko li ma ko bokkal tardé woo dara. dana ko mën a dabaat fii te ko yàqal dara ci xëy na cycle bi mu na. def ngir jàng li war a jàng. Mm-hmm. bi ci bi topp ma rek mooy li ñuy wax pôle d' avocat maanaam fexe ba wut ay avocat yoo xam ne dañuy volontaire mm-hmm. sos ab groupe boo xam ne saa bu suñ daara amee te jafe-jafe ñu ànd Touba Ça Kanam ko te du si ñàkk benn dërëm. ba mm-hmm. xëy na bu fekkee ne moo am dëgg dëgg bu fekkee am leen di tamit ñu fexe ba mu teguwaat ci yoonam war a tegu. bi topp mooy li wax carte de santé. macha allah mutuelle si ñëpp fa léegi. boo xam ne daara lay doon xam ne donc daara da koy am. foo dem ci faju hmm. surtout bu dee Touba Ca Kanam nag ñoo moom place boobu nag de dafa la privilège hmm. mooy njëkk laa recevoir njëkk laa faj nga xam ne da nga a dem ci daara jàngiwaat hmm. loolu lañ bëgg mu daj dëkk bépp nag macha allah ci poste yi fi nekk yëpp kon daal ci gàttal mën nañu wax daal loolu mooy programme bi ñu am incha allah rabbi bëgg li ci woon ñëpp ñu jàpp ci Touba Ca Kanam jëm ca kanam incha allah. jërëjëf Serigne Mamor Mbacke Touba ci kanam jëm ci kanam xam naa comme ni ñu ko waxee rek euh, yi ñu ci tudd yëpp dinañ ci dellusiwaat ci suñu yeneen émission euh, dañuy ñëw ci soxna Ndeye Marème Mbacke Ndeye Marème Mbacke xam naa moom it xëy na ñaar ba ñetti minutes rek euh, mu tënk ci foofu ñu jëmoon ci wàllu soxna yi muy formation bi ak li muy soñewaat bokk soxna yi ñu jéem a nag yëkkati jotaay bi incha allah. waaw sëñ bi jërëjëf foofu nag moom ba tey dañ ci sawar lool ndax suñu bokk soxna yi sawar nañ ci soññ leen li ñu naan euh, kenn ci nekk yaa ngi taxaw di xaar kon ñu ngi soññ suñu bokk soxna yi ndax euh, li ñuy wax nii day lu taxaw kon sëñ maama ñu ngi sant formation boobu nga xam ne mooy doon suñu itte ñun ndax euh, formation lu mu mën a doon ak foo ko mën a defee te amoo béréb boo ko mën a bokk boo ko defee jafe-jafe lay mhm. kon bu ñu amee béréb bu ñu ko mën a defee kon ñu ngi sant gannaaw ñu ngi seen xel ba yéen a ngi koy yéen a ngi koy laas. am suñu kër dañu xamal ne soxna yi na leen. formation yi amul benn domaine boo xam ne ni des na ci formation yi bëgg te bi ñu ko laajee kenn ku nekk wax formation ba nga wuti nañ ko te itam yàlla dimbali na ko incha allah nañ ko tàmbali léegi kon kenn ku ci nekk xam ko na xam si formation la. ñëpp nag mënuñu koo tàmbalee nag. waaye dañ tàmbali incha ba ñu xam ne tàmbali nañ te bu ñu xasee tàmbali bala ñoo bàyyi incha allah dafa daj waxuma Touba sax waaye képp koo xam ne ni bokk nga ci Touba hmm. ci kanam kon ñu ngi ci soññ ñëpp hmm. euh, suñu bokk diaspora bi dañu dellu di leen sant bu baax hmm. leen santaat bu baax euh, di sant soxna itam kii lii nga xam ne moom lañu weesu ndax tey boo gisee yére yi nga xam ne ñoom lañ ko laaj dañ joxe ko ñu xam ne soxna yi moom macha allah allah incha a nga sëriñ def sëriñ bu baax ñu lañ ci ko jaar incha allah ñu ngi sant allah Mm-hmm. amin jërëjëf euh, soxna euh, ndey Marème Mbacke ci euh, commission féminine ci kàddu yu solo yi jërëjëf sëñ Cheikh Abdou Mbacke mi nga xam ne moo yore wàllu réalisation jërëjëf président sëñ Abdou Fatah Gueye jërëjëf sëñ Mamor Mbacke waaye jërëjëf bokk ñuy seeraan ci àdduna bi yëpp waaye ñu ngi jaajëfal nag suñu technicien bu baax a baax sëñ Mor euh, mbay waaye di jaajëfal ki nga xam ne mooy suñu coordonnateur di sëñ Moussa mbay président commission communication di jaajëfal nag waa Bisri TV waa Touba Monde bi TV di wax na li mooy suñu premier numéro ñu jox leen rajo incha allah ci beneen gitaay ci beneen waxtaan wasalaamualeykum wa rahmatullah Votre chaîne Bichri TV est désormais disponible sur le satellite Amos 17 هدية رحمة هدية رحمة هدية